Vous êtes prêts, on démarre 5, 4, mbokk journaliste yi maa ngi leen di gërëm ni ngeen ñëwee tey ak doole macha allah wane ngeen ni jox ngeen importance leader du PTP, le député du peuple, le futur président du peuple, Inch'Allah. tey bis bu màgg la bis bu réy la ci ñun ndax nag <laughs> Sénégal de cee bokk te ñu gis ku ne ñu naan ñi sàcc nañ ay milliards ñi doomu président lañu ñi bu dul lu ñu wane Sénégal dara ñii may doomu président rek dara ñii jiiñal leen ay milliardaires ñu ne war nañ nekk président ëllëg waaw loolu moo yore réew réew jikko ju rafet moo koy yor réew jaar-jaar boo wonee da nga sa réew moo koy yor réew ku bëgg réew ba jal ko bakkanam moo koy yor waaye du jël ay réseaux sociaux ay télévision ay rajo inondé ko corrompre ñenn ñi ñu tëgg la naa yaa war a nekk président yow loo def pour mériter nekk président moo tax ma jox parole sunu jigéen Adja Ourey Fall mi mi nga xam ni keroog mu ngi ci réunion bi samedi bi ñuy wax ni président El Hadji Diouf moo fi mën sunu parti même bu fekkee ne xamee wuñ ko doole jooju Macky Sall bi muy nekk président ko xamee woon doole jooju APR te du leen ma waaj Sénégal Macky Sall bi ñu ko dàqee assemblée nationale mu fekk fa ay ponkal ñuy wax Moustapha Niass Tanor Dieng Idrissa Seck mu am parti bi soo a juddu mais wër xeex ñëw jël réew mi ndax dafa am valeur Macky Sall mon ami affaire bi bu doon loolu kon Tanor Dieng moo nekk président tey dem si yàlla si wala Moustapha Niass wala Idrissa Seck ndax ñoo ko fi njëkkoon yore parti doon le parti socialiste bi ñu yóbbu indépendance ak Senghor Moustapha Niass bokkoon ci directeur cabinet de Senghor Idrissa Seck nekkoon fii ancien premier ministre dem élection topp ci Ablaye Wade en 2007 nekk chef de l'opposition nekkaat ko encore 2019 waaye Sénégal léegi naa fekk ko lal même boo jëlee deuxième temps yi di nekk deuxième yëpp kenn du ne mooy chef de l'opposition nekk na ko ba fekki Macky Sall kenn du taxaw ni Idrissa Seck mooy chef de l'opposition naka mu def rek ñu wut benn waay ne mooy chef de l'opposition te pourtant Idi nekk dafa ay weeri weeri weeri weer avant muy ma Macky Sall waaye nañu bàyyi naa fekk waaye Sénégal waaye nañ bàyyi par parloo bi ak yëfu yëfu ñàkk fayda yooyu dañ ko bàyyi nañu bàyyi di jël benn tuut di ko wutal nam ni nag la am ne ba mu foog day mbëkkaate te du dara di ko xaalal yoon boo xam ne du yoonam kon bala ñu yegsi ci développement li tax le pe a le meilleur candidat urée dana ci dugg après Adja Sofi Thiam wax ci après seen serviteur tojal yax bi war leen pourquoi il a le meilleur profil il a le meilleur parcours mais et puis di slogan bi ñu def je serai le candidat incha allah rabi je de la Mecque comme ça et dama ñaan yàlla bu jox ma réew mi kaw réew mi du kenn du tiitati c'est le slogan de la sécurité candidat de la sécurité et du tëkkal loolu c'est loolu c'est de la situation sur ce plan là je suis le meilleur ku fi nekk di tappet di yox-yoxi ñu di la napp ngay raam di en arrière di bàyyi ñuy taal ak man kenn du taal ku taal ñu taal ku jéem a taal doo taal bala ngay jéem a taal ñu taal la daa ci ñëw université yooyu ñu taal daa ci ñëw du fi avec El Hadj Diouf président de la république Houreye vous avez la parole. non non mën na faa mën na jël ala sayyidina muhammadin wa sallim bismillahi rahmani rahim allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum min al zalimin sama yi yéen ñi fi daje ñëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi El Hadji Moustapha di ko ziyaar di ko màggal macha allah ndax ku ne xam na ne alaaji mu toog daba ñeent fukki guddi yi di mot Diouf ñu lay jox sa wàccuwaay bu wér di la ziyaar di la ñaanal ci sa barke tërandoo ndaje mii ñu toog fii tey nag woote ko di nuyu sama mbokk yi toog yëpp macha allah yéen ñi fi toog ñëpp ku nekk boroom xel nga journaliste liggéey la waaye ku nekk xel nga am réew mi ñu bokk ko ngeen am